set dafa am solo nit ku set ñépp a ko bëgg mais nit ku set day am jafe-jafe psychologique pour dund ak keneen koo xam ne bu fekkee setam dafa wàññeeku walla mu dese damay faral di tooñ naan bu fekkee ne sa soxna yàlla dimbali na ko mu nekk koo xam ne dafa set nga nekk boroom këram doo faral di jëfandikoo soccu walla doo faral di jëfandikoo dentifrice boo waxee rekk xet bi génn ci yow vraiment daf koy jone xëy na mu rus koo wax waaye day mel ni àddunaam dafa tukki kazalik bu fekkee ci sa wàllu yaram ñeme woo ndox di sangu ba mu set di laal parfum yu neex mais nga bàyyi sa yaram mu am benn genre odeur bu muy dégager soxna soosu du mën a continuer ci biir néegu sëy boobu walla nga doon koo xam ne boo ko fekkee mu defar ba mu rafet lal lalam bale ménage def lépp nga egsi ak say tànk yu takk ak say ñàkk bugg a tëdd noonu say boobu du gudd fan kazalik au contraire bu fekkee ne ku góor ki set wecc te ndaw si bi setul buy togg du set ndoxam setul néegam setul euh, du yittewoo yaramam defar ko ba mu set yooyu bu manqué te ngay dund góor goo xam ne dafa set loolu day tax sa couple ki nga bokkal néegu sëy bi dafay daldi di wu dafay dal di xat parce que niveau bu muy dund ci set ak niveau bi moom ngay dund benn ndeysaan léeg nga gis benn couple boo xam ne bu ñu añee ba pare surtout ma añee maafe ak yabay euh, nga gis xale yi naan ci potundaa bi potundaa bi xesew ak liñ doon lekk nga jël ci potundaa bu jox ko sa boroom kër vraiment mbir mi war naa mën a passé niveau boobu donc kenn du seexlu doomam kenn du seexlu kenn waaye nag settaan lu am solo la parce que ni yàlla bindee moo wuute kasaalik soxna si buy togg sa borom kër nekk ko set war nga bàyyi bu baax sa xel ci li ngay togg parce que sa borom kër daf lay catu jërëjëf